waaw jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com ñu ñëw fii nag euh, ci Touba euh, soxna si nga présenté wu. Hmm, waaw man May Dieng. Hmm. May Dieng waaw fii kër Baye Cheikh Dieng boobu la. waaw ñu gis ne Pencum Daaru Minam ñu gis ne kër gi dafay lakk gis nañu sax xale bi dafa lakkaale mën nga ñoo nettali mbir yi nu mu demee. waaw waaw keroog ba léegi naa suba la tabaski keroog la tàmbalee lakk. ñu hmm. bisu altine. waaw ginnaaw suba la tabaski. keroog la doon lakk armoire bi ne woon fii ñaari bataay moo njëkk lakk ba sedd talaata ñaari ba yi ci des moom daal di lakk si ñu mujj génne séri fee ca moom it ci bitti dañuy toog ba mu yàgg rek ñu seen moom it séri lakk noonu daal la la demee noonu moom. Mm-hmm. te lakk gi xamu leen lan leen du courant du leneen. du courant du dara ndax moom njëkkee tàkk moom fii defoon nañ ne courant sax. Mm-hmm. waaye bi mu ko defee defaat ko. fii nag bu nu weeree ci ligne sax day ñëw fekk ko ci ligne gi lakk te yàlla dogoon suñu sër dong ak suñu matelas rek yooyu dong suñu bagage dong la daal mooy lakk. moom yére yi daal mooy mooy ci ci la lakk gi tàmbalee même ci ligne gi. ci weeree day weeree day lakk. waaw hmm. ak matelas yeeg. ak matelas yeeg ak bagalal benn gis nga ko waaw hmm. bu ñu dugalee ci biir tim hmm. moom it la koy fekk daal di koy taal. ah yére yi daal lay topp yére yi moom daal lay topp ak matelas yi. te yéen xamu leen lan la xamuñu. xamuñu lu mu doon moom. xamuñu lu mu doon gis nañ xale bi lakk ba ci degré bu metti moom lakk mu moom moom moom it euh, ak bëccëg li ñu añ ba noppi rek ñu teg ko ci waas bi nii. yaayam di fu fekk dafa defaru yaayam di ko fomp teg ko ci waas fi mu ko wanee ginnaaw rek mbubb mi daal di lakk. Hmm. ci ginnaaw. ma daal di woo yaayam mu daal di ñëw. bi yaayam ñëwee ñu siin ko mooy lakk mu daal dugg taw dugg ci wenataay wi ñu fekk ko fa di koy sotti ndox. Hmm. bi des fee la doon ko moom. mooy lakk-lakk yu mujj yi nii. moom it fi muy njogani ko rek yaay am ku muy waxal rek ñu wëlbati ko seen liñ ko sànga moom it di lakk. kon xale bi lakk na ñaari yoon la lakk waaw mooy fii nii. mooy nii moo njëkk a lakk. nii moo doon mbuum noonu mooy waaw ginnaaw waaw li ci des mooy euh, kii bi nii. Mm-hmm. mooy mooy liñ ko lëmase woon moo lakk nii. Mm-hmm. waaw gis nañ ni euh, yóbbu ngeen ko hôpital. waaw yóbbu waaw yóbbu nañ ko hôpital 28 fa mm-hmm. lañ ko yóbbu waaw. waaw. Eh, waaye téyewuñu ko foofu. te téyewuñ ko moom téyewuñ ko dañ koy defal ay garab rek indi ko noonu. Hmm? ma ne ko téyewuñ ko dañ koy defal ay garab rek indi ko noonu buñ ko bànnee. buñ ko waaw waaw waaw. léegi wax kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo lay dégg. xanaa jàppale ma rek moom lu la ko mën a fay say rek baatin rek waaw loolu daal laa bëgg hmm, hmm, ndax yàgg na waaw ci tabaski ba tey. ma ne leen mat at. noonu la si liñ fi indiwaatoo nag yëpp rek daa mujj lakkaal rek yëpp noonu waaw. ñu bëri na di wax na mbiri junne waaw junne lañ moom la moom. junne daal mën a jotee. waaw waaw oh, fii sama néeg yaay la. sama yaay la waaw. Ah, xale bi daal xale daal lakk gi daal moom moo jaaxal lool yére moom mën nga ko amaat rek waaye doomi aadama mënoo ko amaat. ndax metti na lool. léegi nag mu bëggoon mbokk yi rek ñu jàppale ñu bu baax a baax. képp lu la waay man rek. Mm-hmm. nga jàppale ñu ko. Mm-hmm. ndax metti na moom. metti na trop metti yam. bari demoon na ba li ñu ëpp sax sama yére la toppoon. Mm-hmm. lu ma musaani ba li nga sangu sax eh, yére bi ma weer day lakk ak yooyu. boo waaw booy sangu sax mu fekk ci douche lakk. loolu demoon na ma nag def ci ay ku ci man ñaan rek waaye dama si lii. waaw eh, ma doon wax léegi ne yére yi sax buñ ko génnee ci biti day lakk. waaw yére yi bu ko génnee ci biti day lakk boo wéree ci linga mu fekk ko fa booy sangu sax boo wékkee di sangu sax mu fekk ko fa waaw. lan ngay wax kilifa mën a jàpp ci saa rek baati rek. mu mën jàpp lañu si rek. mu yàlla gimi sëñ Tuubaa. ban numéro lañ leen numéro bi 76 872 35. 58 872 35 58 waaw ok donc nga fàttaliwaat béréb hmm. waaw waaw waaw fii mooy daar minam peccum sëñ Basiru kër sëñ Seex Jang bokk waaw waaw waaw waaw waaw jërëjëf maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm hmm. ñaan yàlla maam taxaw yàlla leen taxaw hmm. jërëjëf waaw